amati mbégteeg bànneex si topp ngeen ñu topp su sunu seen bi di live Dakar 221 ñeel li nga xamante ne si rek moo di euh, mbirum Bougane Gueye Dany nekk si tey ji rek danañ si xam lu leer ndax das koy bàyyam wala rek das koy mooy di téye naka si foofee sa tribunal bu na naka si foofee sax ñu nemmiku ne euh, daati nañ fa rek euh, yóbbu rek ay way takk der yu bëree bëri ñu renforcer ko foofee ñaar la nga xamante si na moo di procès Bougane Gueye Dany ba xamante ne si ne daan ko amal Tambacounda ñu nemmeeku na nag eh, ay naataangoom ay farandoom ay nitam rek eh, fu na eh, bàyyi ko nan si Sénégal daate rek dem foofe sa Tambacounda faskee na rek daat ka fay taxaw moom kooke di Bougane Gueye Dany ñeel li nga xamante ne si na moom nañ ko fay jàppe woon te boobu ba léegi rek ñu daat ko fay tey woon war kaa nag amalak atte nekk si tey jii la 30 bi mu nekk mbir mu xamante ne si ne daas nas kay nemmeeku am ñenn nag si ay awakam wala sax ñenn si ay way politique wala ñu na xamee ñuy wax na rek de ah, Bougane ngay dali daal wara fa sax am li nga xam ne moo di 48 heures daska rek war a daati ah, libéré ah, bàyyi ko ku si mel ne kooke di Cheikh Niass muy xam la na rek kooke di Bougane ngay dani daal daska rek war a liberté wala sax muy demandé la nga xamante ne si na moo di ak liberation ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ak loolu si maanaam daal mbirum Bougane Gueye Dany nag si tey ji rek mbir mi danañ si am lu leer ndax naam das koy bàyyi wala das koy wéy di téye ndax tey ji rek la daati atte ba ginnaaw rek boomu nekk woon foofee sa Tamba Kounda ñu daat ka fay téye moom kookee di Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp nekkit li nga xamante ne si na moo di candidat si élection yi nga xamante ne si ne campagne ba jamono ji la rek ma ngay daat yi wulee ñaay fëne rek ñamu bokkalub coalition sax ñoom dig daje rek la ñu amaloon foofee sa Tamba ku ne wax na rek foofa la ñuy daat yi daje ñeel projet ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany keneen ki xamante ne si ne moo di mbirum yoon it moom kookee di Ameth ndooy nekk chroniqueur te woon kër naka si fan yee ñu a génn ñu ne rek jamono ji daat na si rek jàllale moom kookee di Ameth Ndoye ñu war a xaar àtteeb rek nag si lundi lan ka war a àtte nu ne sax tàkk der ba nga xam ne moo ko def defaraloonu kayit daan nes ka jàpp moom kookee ñaar ñi nga xam ne moom moo di mbirum Amet Ndoy ñaar li nga xamante ne si ne rek moo di wall bu yoon si li nga xam ne yoroon na ko mu doon woto ba rek defoon sa benn bu jëyee tax rek ñu daat koy téye moom kookee di Amet Ndoy ne këppoo chronique